non de loolu Fatou Kiné Fatou Kiné soo mu gisee tey jii di nga xam ni am na lu changé si man Fatou Kiné gëm naa ni xaste day yokk nit jom quoi. ah ñu xas yëpp kon yow am nga jom ñu ne léegi. sama cousine bi ma la doon wax tey si ngoon daa bëgg ñu ñëw. dëgër nga bopp tamit quoi yow fi ngay dem une semaine rek nga fay dem man mën naa gérer loolu amul problème pourquoi ngay insisté pour bëgg indi sa cousine mu lay xaar. parce que fàttali ni man tay nu mel yeen la donc mënu ma dem joxe fenen khalis bayi len yow lo yor. alal ju dul jeex. Mbébé soo gisee ma def loolu buguma nga sentir sama absence mukk te aussi ki ma lay indi xale bu baax la xale bu yarul te xale bu teey te daf ma bëgg aussi. ñew na ci kër gi xol gaddu maletu khalis yow est-ce que wourna ah gis waaw bu police ñewé nak pilifar pilifar ngala wak mako boga wagule bam dem gis kenet nga yedo miser del gam ndur du nit wa wa papa papa <laughs> ha ah? jamono yi way mbeugel lek ngay way bata ya bir wi le Masha Allah, bas ah ah ah ah degg ndi Bidaay yow yow sa wàll bopp. man man man man kaaw man kaaw kaaw fi ba Tuubur jooy fi ba Daaru Jolof billaay maa foor Fatma da foor woni foro doraas man la man.